waaye den ndokkee ci xew-xew bu màgg bi ñu dëgmal di màggalu Tuubaa sëriñ bi nee na mi ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ndokkee ñëpp di masaw ñëpp ginnaaw bu loolu jàllee nag xam naa li ñuy wax tamxiid nag lay nekk waaye li ëpp solo ci kàddu yi incha allah ni mu ko baaxoo def ci alfatih min safar buñ ci àggee dana yëkkati kàddoom àdduna sépp dégg ko mu fàttaliwaat bokk jullit yi ak bokk taalibe yi Sëriñ Tuubaa taalibe yi yi nga xam ne ñoom la sañ a digal sañ leen tere fi nga xam ne fa nekk ak li ay ndigalam yu jëm ci moom kon sëriñ bi nee na mi ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp ginnaaw bu loolu jàllee nag muy fàttali li nga xam ne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 wa an akuna shafian li qawmi wa an akuna xaadiman fi dawmi kon bis boobu bii nga xam ni mooy bis bu tedd nga bi nga xam ni Sëriñ Tuubaa ci boppam moo wax ci làmmiñam leeral li ko taxoon tukki xam la it tukki bi lam ci jëlee ak la ko tax a jóg ak lam ci amee ci ay daraja mooy bis boo xam ne suñ lépp itam ci la defaroo moo te ñu def tanassur te sëriñ bi neewoon na law tanassartu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 mënuñ ko Serigne Touba am ndam ci seen kaw kon bis bi bisub ndam la bisub victoire la mooy bis boo xam ne nag Serigne Touba waris na koy fàttaliku ndax bis la woon bu wéet mu bàyyi ko woon ca mbakki Bari dem di liggéey li rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi fi njabootum ku tedd ga ñu toll ci xam ngeen jamono yu tollu toll ci di door a tàmbalee dal alxuraan rek. mooy cheikh Mahoudou Moustapha ak cheikh Mahoudou Fadil ak cheikh Mahoudou Amin mu jël leen dénk leen rakam ju tedd ja di jëwriñam di ak cheikh Ibrahima Fati kon bis bi na ñëpp maase ci xam ne bis la boo xam ne bisu ndam la waaye bis la boo xam ne lu ñëpp am rek ci bis bi dañ ko amee Serigne Touba génnoon këram.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 ndax lettre bu mos a bind Cheikh Ibrahima Fati day mel ne dafa waroon di séntu séntu ñu di ko ñaanal mu dellusi waaye la mu koy jëkkee wax mooy fàttewuma leen ci ñaan na seenum xel daal kon moom mbiram lépp da koo leer ba yàlla def nag mu dellu si ba njóbbu ko gànnaar mu motti liggéey ba mu fa doon def na mu ko waxee ca bayitam yi rek man zanna zayri xibba aami aksasi mithla masiri rasa aami jaysasi tabata kawnuhu jahulan umra bal huwa tadyibul ali lil umra lam yakun seyru aksasin siwa jasa man li yaqaada baadu waxdan najasa mu ne fa ba jóge fa la fa xew lépp xam ko fa ñépp maase ci jël jël seen lépp jëbal ko Sëriñ Tuubaa ba boo demee Mauritanie ndege ni dañ lay wax ne la Mauritanie gépp dañoo juyoo ci lépp am des mbirum Sëriñ Tuubaa mbirum Sëriñ Tuubaa nag ña doon murit sa ña ko doon ñëpp maase nañ ci dëppoo ci mbirum sëriñ bi muy tawfeex ju ko suñu borom defal mu de jóge fa ñu indi ci yéen xam ngeen sabab sa taxoon ñu indi ko fa ngir bëgg koo ber ngir xam ne Sëriñ Tuubaa eh, fu nekk ñëpp dana ko fekk te bu yàggee fële ci mursani dana mujj alamu islam bépp dana def yoon na say topp ci ginnaawam ñu indi ko fii ngir ber ko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 mu wax ne raamoo masiri ilaa jurbeel la daal la sasi law aayenoo sirra maa fi sayri ma raamoo njaareen fa la Sëriñ Tuubaa mbiram yépp di yëkkati ko bu mel ne jant bu faw kon njaarim googee nag li ñuy bëgg waxtaan tey fa la xewe fa la Sëriñ Tuubaa xëye bis ndax nattu bii kat di màggal Tuubaa da def fu muy bëgg agsi nattu bu ñu ko teg bu demee ba waxtu wa agsi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 way juru Cheikh Abdoul Ahad sëriñ Serigne Souhaïbou bi mu fi bàyyi ko ci safar ba ci njëkk wax nañ ci la ko Serigne bi tàmbalee ci biir kër gu mag booba it Serigne bi yëgleeg ko ñu teg ci ñaari at wala ñett sëriñ bi xëy woote ndax dégg ngeen xissa bi ni ko Serigne Moulay Bousso nettalee ca gàtt ba ci Serigne bi njëkkër bi mu ko sëriñ bi woote nag ba digal ko taalibe yi yónni ko Serigne Abdou Dieng Balla Fani wax ko ne ko na ko yëgal taalibe yi nee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 lam yusbax ila misliha wala yusbax ila misliha wasalabta ilaya fi yowmi xatti heesal xatta alqurana wa lisaan alarabi wa lisaan alarabi wa manafia dunia wal axirat fihima fa salli wasallim wa barik ala sayidina mawlana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi yaama jahata haasihi alqasidata ahaba ilayka min kulli mawzunin qablaha baatub al arnab dugg ci biir mooy al ijaabatu mooy alif bi raa ji di redan noonu gi di nafa baa gi di barakatu kon Serigne Touba léppam ay mbóot la kon noonu la ko wéyale ba 1927 mu ñibbi si Touba ginnaaw mi tam ki ko njëkk a wuutu di ay Cheikh Mouhamadou Moustapha wéyal ko ca ndigalu Serigne na ko daa defe ñëpp di ko ànd ak moom ba 1945 ak Cheikh Mouhamadou Fadil ñëw bi mu dikkee itam diggante taalibe Serigne Touba yépp ne nañ koy tuxal si fii muy ndigalu Serigne Touba ngir xam bi yi dem itteel woon Serigne kon nag nit ñi li ñuy ku nekk na ngay gisee ak na ngay waxe waaye am na loo xam ne jërul guddali wax bu ko sëriñ Touba santaani wutoon itam te Cheikh Mahamadou Fadil xalaat ko santaane ko it te Serigne bi su ko waxee doy noonu sëkk ci ndigal Cheikh Mahamadou Fadil boo ko santaane woon itam amul dara luñ ci xalaataat lu su jàpp ko ndigalu Serigne Touba kon loolu jërul guddali wax.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 ginnaaw bi itam bi nga xam ne bàyyi ko na fi Cheikh Mouhamadou Lamine ñëw mu njëkk a wuutu Serigne ci ay sëtam wóyee daal liggéey ba na ko kilifa bi daa defee ba ñu fi itam ak Cheikh Sidi Moukhtar ñëw wóyee daal liggéey bi ak ndigal na ko kilifa bi daa defee ba bàyyi ko fi yàlla def nag Cheikh Mouhamadou Mountakha mii fi nekkee Serigne Touba tey ñëw wuutu leen ca liggéey ba. te kàddu yama yëkkati démb moo ma ko wax ma yaar rek ma fi bàyyi.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 nañ xam ne ndax màggal gi tey ren dafa tombe ci li ñuy wax contexte waxtu wu xat mooy wér di gi nga xam ne suñ borom da ko wàcce ci kaw jamono te moo xam na tax mu def ko ndax yàlla kenn du ko laaj lu tax waaye nag neen la ci sëriñ Touba tontoon ca peste ba ci njëriñ rek lay wax ndax nee na tubaa Touba bi taalibe ñëwee di ko wax ci pest bi sëriñ tubaa dana leen mbindeefum yàlla la.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 ndax ab jaam balaa suñ borom nangu ak njaamam lépp lu yàlla dogal ci moom da koy neex kon Serigne Touba nañ xam fa mu nekkoon ci biir loolu itam na ci suñu xel dal danaa ci dellusiwaat li war a tax suñu xel dal ci kon Cheikh Mouhamadul taxaa wax na ne mu ngi soññ taalibe bi yëpp ñu góor nag ci def tawakkul ba a def tawakkul wakiilu ci yàlla.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 ba ca des mooy fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun loolu itam xam-xamu médecine di ca bi nee na kon li nga xam ne wàllu docteur yi santaane nañ ko ci lu ñu war a wattandiku te la ci jiitu mooy masque yi nga xam ne santaane na ko na ko taalibe yëpp masque ci di ko def góor góorlu ci def ko ngir xam ne ñoom ci seen xam-xam jàpp nañ loolu mooy la jiitu ci la ci war a musal nit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 laa fi lesi nufusukum taxtaaru jàngoro ji am naag amut ak yëpp bu suñu yónnee ndax jàngoro li Sëriñ Tuubaa wax rek is laysa ahadun maasuman min al marad loolu lépp day guddali wax Cheikh Mouhamadou taxaar mi fi nekk yaa nekkal fi Sëriñ Tuubaa boo xasee gëm ne am na digle ci lam ca war a wax kenn du warta jéem a lijjanti jàngoro ji amul loolu weddi waxe sëñ sañ la te loolu kon war nañoo xoolaat suñu taalib wala suñu murit ndax ab bi kat du xool jub ci xelam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 ndax am na ci ñoo xam ne euh, bu ñu amee luñ lekk tey mën nañoo bañ am luñ reer kooko masque yombut ci moom boo ko ko diggalee dana jafe kon sëriñ bi nee na mu ngi diggal mboolem taalibi sëriñ Tuubaa yépp kenn ku ci ne lu ci waay man ci jënd ay masque def ko àddee sëriñ Tuubaa joxe ko ngir jàppale ko ñi ko seen yo ñi nga xam ne seen kattan ak agguja néegam natt nañ boo wax ne màggal gi daaw lu mat juróomi million yi daje na fi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 bu lool loolu itam euh, jox naa ndigal Serigne Ousmane ñu def taxawal benn euh, commission bu yaatu boo xam ne dañ ko yaatal ci dëkk bi buñ ko dajalee yóbbu ko ba ci sëñ bi nu mu ko santaanee ñu war ko tasaare ci nit ñi def ko kon loolu itam ñu ngi ciy soññ bokk teel bi yëpp di euh, gërëm ñëpp nag bëgg ñëpp gën a bàyyi xel waxtu wi fi mu toll ci biir lool itam nag moo tax sëriñ bi ngir bàyyi xel waxtu wi. ndax li jiitu ñu ñun ndigalu Serigne Touba ndigalu Serigne Touba moom bu suñu bakkan doon desit jar na ko ci ñun bu suñu bakkan doon des te sëñ bi foofu la nekk bëj ci suñu suñu bakkan doon des itam ndax saxaaba yi kat seen alal am wa anfusahum bi anna lahum janna anfusahum wa amwaalahum bi anna istara minal mu'minin anfusahum wa amwaalahum bi anna lahum janna seen alal ak seen bakkan lañ leen laajoon ñun nag ndigalu Sëriñ Tuubaa dara gën koo for ci ñun kon bu ci suñu bakkan doon dese jar na ko ci ñun bu fekkee ay góor lañ wala li ñuy wax dëgg la ci ñun man de ndigalu Sëriñ Tuubaa lii lépp lu nar dox sama digg moom yàlla na yóbbu sama bakkan te xam naa ne lépp ci taalibe yi foofu lañ ne ndax wóor na wóor na ñu ne koo ko defee positif te dara ñu gisal nekku ca Sëriñ Tuubaa dana la ci musal bu fekkee yàlla tudd na sa bakkan ca la war a dese te te te bi bëggee ko noonu it booy fàtte di kon nag loolu bu ci kenn am tiitaange te xam ne Serigne Touba Serigne Souhaïbou bu daana nett li am na ko ko waxoon ne ko yéen kat damaa gis ñenn fonk docteur lool te ma gis Serigne Touba fonk doon docteur Serigne bi ne ko waaw Serigne bi de daraa jàkkaarloo jàngaro na ko jàngoro bàyyi diw waaw comme nag loolu moom kenn ëggu ca daraja jooju ñun nañuy fexe ba jël suñ lépp jëbal ko Serigne Touba tey tey tey tey tey wax ak docteur yi Serigne Touba nit ñëw na wéradi siyaare si ko jàmbat ku wéradi Serigne Touba jël loxoom teg ko ci boppam ne ko fakka fakka chef na maa bii mu ndur mu tàggoo jàngoro ja dégg ngeen benn naar boo xam ne ci waa kër Serigne Touba la jóge dafa wéradi lool bañ jàpp ne faatu na daanaka bañ ko yëgalee sëriñ bi sëriñ bi.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 la ko sëñ boo waxoon mu jaaxle lool ne man ah man de xanaa yàlla daal na mu ma wér nee na fi mu tàmbalee jaaxle rek am lu tolloog fenêtre bi ci saxaar bi fëggu ko te gisu jëmm ji nekk bul fàtte bis bi la sëñ bi waxoon àllarba la ba mu ko jëfandikoo daa tàggoog wér di nga nee na damaa wér ba mu ne ku mës a wér di kon na seenum xel dal bu baax na suñum xel dal ñun bi yëpp te xam ne Sëriñ Tuubaa euh, dox na suñu digg lépp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 ak yéene ko jataay ak lépp lu nekk ko ñoom kenn ku ci ne def ko kon sëriñ bi naa ne ci li weesu lépp ak li egsi wut mi ngi leen sant di leen gërëm leen ñaane ci barkeb sëriñ Touba mi nga xam ne li ngeen di jëf lépp jëmoo tax kenn ku ci ne taxaw la te nga day cee ngërëm di gërëm itam ñi nga xam ne seen maam yi njëkk a topp sëriñ Touba muy cheikh sëriñ Touba bi naa ne ngi leen sant di leen gërëm bu baax ndax kenn ku ci nekkat taxawaay ba sa maam ju tedd ja taxawoon ci Serigne Touba ndax ñoom kat bay ñëw ci sëñ bi rawat na ña njëkk ñëw dañoo jaayante woon rek ngir ëllëg waaye jàpp ñoo ne sax bari àdduna nekk fekk daan ci fekk bokk ci ne sëriñ bi gërëm la toftal la mbooloo àdduna ci dund ak diiru sa dund njaboot kon ñooñ ñooñu itam sëriñ bi neen mi ngi leen di sant ndax la sëriñ Saliou Mbacké daa wax rek daa wax ne bu ñu wax yoon wi mooy Cheikh Serigne Touba yi ndax bu tolloo Serigne Touba akum njabootam la jox kon Serigne bi leen mi ngi leen di sant yéen itam leen gërëm di leen ñaanal gis na positif bi ci li weesu lépp ni ngeen ci doxee digg moom kenn ku ci ne li ngay jëf ci digg moom wóor na ko ne bu fi sama am nekkoon jëf ji ko weesu kenn ku ci ne xam na ne boo doon jëfal Serigne Touba itam doo ko weesu kon nag Serigne Touba mi nga xam ne moo leen tax di jëf mu ngi leen di ñaanal ci dara jàmm kenn ku ci ne mu gàtt ci sa jëf dafay la ca lu kaw si ñor di gërëm nag mboolem taalibe Sëriñ Tuubaa yëpp bayut kenn di gërëm lenn ci daayira yi nga xam ne kenn ku ci ne sa taxawaay ci yoon wi daayira yëpp lu gërëm nag ndax xam ngeen ne at mi diiru at mépp muy ci biir réew mi di ci bitim réew fenn fu ci ne at mu jot ña ngay dajee te daayira Sëriñ Tuubaa di ko indi di ko indi sëriñ bi waxtu ne léeg sax mu dem ba ëpp téeméer daayira par bis kon ñoom seen pëseef kenn mënta natt fa ak ñi nga xam ne ñoo indi teel toole àllarba yi ñooy ñëpp kenn ko ci ne nañ ko daal di fay dara soppi ko ci di gërëm nag daayira yi di ko tàmbalee ci mu muqaddamatul xidma bi nga xam ne moo yor jumaa ji sëriñ bi neen mi ngi leen di sant di leen gërëm ndax xam na ne bi mbas mi tàmbalee ba nëgë ni def nañ liggéey bu rafet liggéey bu sell boo xam ne lu nit ñi doon séentu rek ëpp na ko kon sëriñ bi neen mi ngi leen di sant ci seenu xer ak seenu njàmbaar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 kon sëriñ bi neena na foofa itam mi leen ci soññ di leen ci ñaax ñu fexe ba siyaare yëpp jàll te xam na ne jubaay suñu tuwaay kenn du fi ñëw lor di la fa waaye li ñu war a sàmmonteeg àdduna ñu fexe ba sàmmonteeg moom. di gërëm itam daaira rawdu rayaxiin nga xam ne lépp lu jëm ci wàllu xam-xam ba ci université bi ñoom da ko sëriñ bi teg ci seen loxo ñoom itam ba. bañ jotee ndigal li ba ni ci jamono Serigne Saliou Mbacké ba nëgëni ñu ñu ngi ci taxaw taxawaay bu rafet boo xam ne at mu jot lu ñu jëfoon danañ ko yokk sëriñ bi neen mi ngi leen sant bu baax ci ni ñuy li nga xam ne mooy njàngaleem Serigne Touba ba ñi nga xam ne xamu xamuñu woon Serigne bi di ci gën a gindi ko di gërëm itam waa daayira tuubaa ci kanam ñoom itam seen pëseef ak seen taxawaay adduna sépp xam nañ ko ndax waxuma la ci màggal bi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 kuy xalaat ci yéen dara rek daa jàpp ne Sëriñ Tuubaa dara jomb na ko neen nag la ma xamoon ci yéen ba nëgë ni loolu rek la gis ci yéen ci taxawaayu positif gis na add mépp yéen a ngi ànd moom liggéey fu mu jëm fu mu nekk ak fu mu lu mu leen digal yéen nga ca ba ci université bi këru xasida gam leen sant loolu itam yéen ca di ci taxaw taxawaay bu rafet rafet di gërëm waa daayira Safinatu Amaan nga xam ne ñoom itam war dëkk bi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 jël nañ fa ay bâtiment yu bare bari di gërëm it waa daayira wilaaya ndax bañ tàmbalee màggal bi ba na gën ñoom itam ñu ngi koy ànd te mosuñ cee toqi mosuñ cee dàcc di gërëm itam daayira bi nga xam ne moo ëmb doom doomi cheikh nga xam ne at mu jot bu premier safar bi tàmbalee bañ àgg ci bis ba lépp liggéey bi dañ koy ànd ak ñun ci na mu gën a rafet na mu gën a baax di ko defee pëstef di gërëm itam waa comité organisation bi bi nga xam ne yàlla def na ma nekk ci seen kanam te sëriñ Ousmane ne ci seen njiit maa ngi teg cant gi ci loxoom mu jàllale ko ci mbooleem commission yi nga xam ne ñoo seq commité bi yëpp di leen sant di leen gërëm bu baax ci seen taxawaay ndax liggéey bi kat mu ngi bëgg yàgg ndax 2009 ba nag ni du benn at du ñaari waaye waxtu ne seen yitte ak seen posture ak seen taxawaay day gën a yokk di gërëm itam nag seen kilifa yi nga xam ne.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 Mawahibou Akyas bi nga xam ne mooy fédération université yi Sénégal te at mu jot ñoo daal taxawu euh, ñi nga xam ñoo jàng alxuraan xasida ñoo itam seen positif ak seen taxawaay ñëpp xam nañ ko mboolem ku ma fàtte itam nga xam ne kenn jëfut ngir ñu sant la dangay jëf ngir seeral Sëñ Tuubaa te Sëñ Tuubaa mi ñu seeral nag am na am am ñëwul bor dafa am ak pay kon kon sëriñ bi nee na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 tàmbali lañ ko di ko ànd ak ñun ci màggal gi ak lu jëkk màggal gi ci lépp ñu di ko def ci ndigalu sëriñ bi di leen ñaan ñoom itam li ñuy jëf di ko jëfal sëriñ bi yàlla nañ ca dajeeg poyu sëriñ Tuubaa di gërëm itam nag waa nguuru Sénégal ci njiitalu président Macky la ndax loolu bokkoon na ci li nga xam ne sëriñ bi waxoon na ma ne naa ko jottali nee na ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm ndax moom yàlla da ko booleek moom lu yàgg.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 li nga xam ne tàmbali nañu ko ndax li egseegu jërul lim waaye li nga xam ne ñu ngi koy def fi mu toll mooy mbeddum 30 bi mu ngi toll ci 12 milliards yu tegal yoo xam ne tàmbali nañu ko ba ca des làmp yi nga xam ne senegal gépp lañu ko doon def waaye sedd nañ ci Touba lu ci seddu benn dëkk loolu moom itam ñaari milliards yu tegal dugg na fii ci biir dëkk bi ba ca dolli ko waat itam mooy fi nga xam ne fa la defaree mbalit bi ndax xam ngeen ne mbalit sono na dëkk bi loolu foofa itam def nañ fa lu mat juróom-ñaari milliards ak yeneeni liggéey yoo xam ne euh, xëy na sama xel teewloo ko fi mu toll nii waaye boo ci boolee assainissement bi bëgg dikkaat mi ngi tellu ci boobu 23 milliards ak étude bi nga xam ne ci weeru septembre bii lañ ko war a tàmbali ngir xool réseau bi ak li koy defaraat xool liñ ci war a sensibiliser lépp ak fexe ba ndox mu neex bi ñëw Tuubaa euh, cabinet ba ko ba ko war a defar gagné na marché bu war ko tàmbali septembre bi loolu itam liggéey bu rëy la boo xam ne itteeloon na sëñ ndax sëñ bi dama waxoon ne ma xamalal ma ko ne ko ci université bi bu toll moom day somb bu waaye kon ci ndox mi sama yitte ci laa koy jëme loolu itam ba mu ko yëgee def na ci yitte ak yeneen yi nga xam ne teewlu nga ko waaye loolu rek mën naa ko ci tudd ngir sant ko bu baax ci ni ko si sëriñ Cheikh Mamadou Mountakha santaane di ko ñaan Serigne Touba mi nga xam ne lu ñu def ci jëkk bi rek moo tax. yàlla na ko ci fay lu koy njortoon di jeexale rek ci loo xam ne ñëpp ci war a jàngate ngir mu dolliwaat suñ pëseef ak suñ yaqin suñ digg ak Serigne Touba ak Cheikh Ibrahima Fall dafa tëdd bu wéradi Serigne bi yónnee suñ Mor Talla Fall ci moom nekk boo demee nga seetal ma ko man demee fekk Cheikh Ibrahima boobu wéradi gi sonal na ko lool ba fa jug mënu fa tëdd ndax loolu. nit yàlla yi ay nattu la yuy tege ci seen kaw ba suñ Mor Talla ak seet ci maam Cheikh Ibra nuyu ko ne ko sëriñ bi mu yónni woon ne naa la ko seetal ci wérdi gi Cheikh Ibra ne ko euh, nit de boo ku boo koy seet da koy jox lu mu yóbbu da nga ko joxub yóbbu ne ko seetale ko lii ana alal la suñ Bàmba jox nga seete ma ko ne ko moom du joxuma dara waaye nas tuuti rek.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 ca xam ne li nga bëgg Sëriñ Tuubaa daal lu ko defal kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam